dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen a ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaara naan ñu borom réew mi di Macky Sall ni ki démb doon na amal conseil boo xam ne jëm na ca projet de loi aju si recettes yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci pétrole bi ak gaz bi ana xaalis boobee ana nan la ñu koy sàmmee loolee ci la Macky Sall xëyu ni démb journal bi nee na njiitu réew mi daan anticiper lu jëm ci wàllum yorin wi ak wàllum transparence ci xaalis bi nga xam ne mooy génnee ci sunu pétrole bi ak sunu gaz bi yéen a kaay at mu jot Sénégal dina am recette yoo xam ne dina toll ci 700 milliards maanaam juróomi téeméeri milliards at mu jot Sénégal dina ko am ci pétrole bi ak gaz bi yéen gi ne na xaalis boobee nag li nga xam ne moom lañ ciy def 90 pour cent ay investissement la yoo xam ne ci askan wi la jëm directement waaye nag am na ci 10 pour cent yoo xam ne maanaam ci génération future la jëm ñoom lañ koy dencal yéen a kaay gi di suddi ko di jee nee na njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb daat na yemale ñi nga xam ne ñooy fonctionnaire yi maanaam syndicaliste tax li nga xam ne mooy salaire yi payoor yi ñu daal di koy yokk Macky Sall nee na leen déedéet déedéet maanaam nag sept cent milliards yi bu leen jàpp benn yoon ne maanaam salaire nag dañu koy yokk yéen fonctionnaires yi ak yéen syndicalistes yi yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu recettes yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci pétrole bi ak gaz bi quatre-vingt-dix pour cent budget la dix pour cent génération future a na projet de loi ji nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gi de La Témoin xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas deux mille vingt-trois daal si la sept cent yi commencé di dugg at mu jot yéen a kaay gi de L'As xëy ci lu jëm ci wàllum góor jigéen gi ci Sénégal ak coow li nga xam ne moo ci am ak nag projet de loi bi nga xamante ni am na ay kuréel yoo xam ne ñoo ngi jóg di ko sàkko journal bi ñu xëy fekk fa Aïssata Tall Sall ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères nee na du mos a am Sénégal di légaliser li nga xam ne moo jëm ci borom ñaari tur yi yéen a di wal fajri xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall njiitu réew mi mer na ba maara détaillé président Macky Sall nag mer na li nga xam ne suba a loo xam ne war nañu ko wax ci réew mooy scandale yi nga xam ne jamono ci ma ngi mel ni ci société publique yi yéene kaay gi ne na bërki démboo njaay yéen a ngi doon dégg marché gré à gré fi nga xam ne mooy SARA société africaine de raffinage marché gré à gré boo xam ne toll na ci deux cent milliards maanaam yaa ma neex marché yaa ma saf yéene kaay gi ne na détournement yi tamit ci ma ngi mel ni tulleeg màlle ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn dégg ngeen postu milliards yi nga xam ne ne moom la ñu détourné xam ne moom la ñuy génn doon ngeen dégg crédit mutuel du Sénégal maanaam milliards yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ fa détourné yéen a kaay gi ne na en tout Sénégal jamono ji nag maanaam détournement bi ma ngi mel ni tulleeg màlle yorin wu bon wi maanaam tong-tong bi séddoo bi pasar pasare àllalu réew mi yéen a gi ne na nag lii nga xam ne moo xew poste ak LONASE ak crédit mutuel doy na waar génn xeetu doy war goo xam ne fu ko waaye nattaana koy passé waaye nag li nga xam moo jaaxal gars yi maanaam ki la dàq détourné kookee lañ gën a nag yokkal gratam di ko jox ay poste yu neex a Sénégal da ngay gis koo xam ne nag dafa détourné milliards yi askan wi maanaam ñu jël ko nag jox ko ay poste yoo xamante ni dafay neex ba maara détaillé maanaam li mu détourné daal li mu sàcc alalu askan wi maanaam dara du ko ci fekk ay délinquant délinquant yi nga xam ne nag ñoo nekkoon ci opposition bi ñoom dañuy daw nag fekki pouvoir yéen kaay gi ne na lii li nga xam ne moom lay jur maanaam mooy encourager guerre ba pare nag di encourager li nga xam ne mooy détournement du samay kaddu kaddu yu Assane Samb la ma ngi ci yéen kaay diplomatique yi nga xam ne ñoo ngi ciy tudd ñu nekk ministère des affaires étrangères ak présidence journal bi nee na ñooñe nag am nañu juróom benneelu retour de parquet yéen a gi di Walf Fadjri nee na scandale yi nga xam ne am na ci réew mi maanaam bëri na genn xeetu bëri goo xam ne Sénégal moom bu doon aw jën la ñu ne bopp bee yàqu li doy waar ci réew mi maanaam scandale yi ci njobbaxtalu nguur gi foofee la scandale yi di am nag maanaam tooxi doona yi yéen a kaay gi du L'Observateur nee na trésor public foofee nag lu toll si ñeenti milliards daal di ngembala la ñu fa détourné journal bi nee na procureur jamono ji nag moom mandat dépôt lay wax libération yéen a kaay daal ci trésor public ak xaalis boobee nan lañ ñu ko ngembale yéen a kaay gi na kii ñu wax nag Abdou Aziz Diop kookee percepteur la dëkk Mbàkke li ñu koy joxar bi baaraamu tuuma toll na ci deux milliards quatre cent cinquante neuf millions trois cent soixante onze francs beneen percepteur bi di Mohamed Ndiaye dëkk Saint-Louis kookee nag ñoo ngi ko joxar bi baaraamu tuuma lu toll ci deux milliards deux cent vingt cinq millions millions yu toftale cinq cent soixante-cinq francs yéen a kaay gi nee na mbir moomee nag doy na war yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ci campagne de vaccination poliomyélite bi nga xam ne ministère de la santé moo ko doon def ci biir réew mi yépp journal bi nee na campagne boobee nag mën nañoo jàpp ne dafa lajjee ndax nag bëri na nag ay xale yu bare bare bare bare yoo xam ne ba léegi maanaam kenn ñëkku leen ci lu jëm ci wàllum poliomyélite yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na kilifa bu yaanaa maar daana ñu koy bàyyi ni ki mu ñibbi kërëma Mamadou Sall député benn bokk yaakaar yóbbu nañ ko sa kasu ba Sadio Dansokho moom tim yóbbu nañ ko niki démb sa kasu ba bi neena na nag ki nga xam ne mooy Boubacar Biaye moom ba léegi maanaam good fine Boubacar daal moom kenn convoqué wu ko yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa nag Gaston Mbengue muy tontu ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye ndax Aziz Ndiaye keroog dafa wax ne Balla Gaye numéro 2 du bëre ak Boy Niang Gaston Mbengue nee na Aziz Ndiaye day wax rek man maay décider Balla Gaye 2 dina bëre ak Boy Niang 2 nii wala ci naa